Bienvenue sur Salam Vision. Tivaouane kilifa gi ñu ngi lay siyaar ñoo ngi siyaar kër jeune bi maa ngi ngeen jàmm maa ngi sant bu wér fàttali ñu tur bi waaw Moustapha Sarr ñu gën ma xam si Tafa Sarr si Tafa Sarr waaw tey ji ñu gis ne taxawaay bi tey ji ñëw ngeen fi tey indi fi oto tey ji ngir fas yéene fee dund ay mbalit ak ak ay ndox ci taxawaay bi nga xamante ni tey ji def ngeen ko tey ji ban yëg-yëg ngeen ci am avant tout damay présenté wu bokk si commission environnement vice président di di gërëm sama présidente euh, Adji Kodouka di gërëmaat tamit euh, monsieur le maire Modou Gueye ak sama équipe bi ma àndal ku si mel ni Pape Sarr mooy chef d'équipe bi waaw bi ñu ñëwee ñëwoon nañ fi avant quoi avant hivernage yi ndax def nañ fi pré hivernage ndax ku xool xam ne at climat bi li ñu wax si climatique bi ndox bi dina bëri ren moo tax ñu teel a ñëw teel a ñëw pour euh, def pré hivernage pré hivernage bi ñu fi defoon mooy dragage bi ñu fi defoon mooy fee nga gis tifaay fee mu nekk ñu dragué ko nettoyé fii mais nag bi mu tawee ba pare ndax fii soo xoolee euh, mbartal la point bas la suy taw suuf seeg pat bi lépp su ñëwee fii lay toog après par la suite ñun chaque fois ñoo ngi sur le terrain mais si bi ñu ko signalé maire maire automatiquement mu wax ñu ko ma ne équipe bi kon tey nañ xëy si fi ñu dindi salté lu ñu gën a taadal mooy oto yi fi fekk ndax tamit euh, lu mel ni tali ci kaw tali bi nii oto yi war ñu fee taxaw di encombré ndax salté yi suñëwee ci oto yi si taatu oto yi la la la cang loolu mooñ sax tax moo jël suñu temps quoi mais ñoo ngi ci liggéey bi ndax lii la population bi soxla moo Gueye bu mu yëkkatee loxoom ne fal leen lii moo tax ñu fal ko te macha allah moo ngi ci daal moo ngi ci waaw. tey ji ñu gis ne tey ji taxawaay bi ngeen am ak idée bi ngeen ci am ni rafet na lool moom tamit di ko nuyu tamit au moom moo di Modou Gueye parce que yaakaar nañ ne maire lii lañ soxla tey yow ci biir gox maanaam bu askan bi di jooy da ngeen a jug ngir dem laaj leen la nga xamante ne moo leen métti ngir nga taxaw leen ko après am nga ci taxawaay bu mat sëkk ba tay tey ngeen indi fen grand tey ko fi tey ji ñoom ñi nga xam ne tey ñu ngi taxaw fi tey kontaan tey am tey mbégte bu mag tey ji tey ji li ngeen dindi tey ji te monte tey affaire xatoon na oto yi ñoo ko xawoon tardel tey ji maanaam léegi est-ce que léegi jotul léegi maanaam ñu xool léegi comme yenn garage nga xamante ne dañ fay nekk maanaam ñu am feneen foo xam a baare euh, tare bi la ndax soo xoolee koñ dafa am quartier am chef de quartier léegi waa koñ yi koñ bi soo xoolee am na ay jeunes te gëm naa ne am na jeunes yoo xamante ne organisé nañu ay association ñoo ngi fi même mouvement nawetaan moo ngi fi su fekkee ay moo ngi fi maire duñ ne maire lépp lépp rek maire maire maire am na loo xamante ne ñiy dëkk ci biir gox bi ñoo ko war a téyel seen gox ndax tey man mënu consevoir ma gis oto bu taxaw dégg naa ñu na borom dëkku fi te liggéeyu fi mais pourquoi pas moom muy jël ay otom ñëw di encombré euh, mbedd bi mais waa koñ bi ñoo si war a yenn am na yoo xamante ne waa koñ bi ñoo si war a taxaw su dëgëree ba dëgër nag ñu yéegal ko ci kaw su egge au niveau de mairie Modou Gueye moom dina si jël ay ay responsabilité am mais en tout cas daal bi ñu ñëwee ak machine bi macha allah waa koñ bi kontaan nañu ñoo ngi ñuy ñaanal te tamit na euh, euh, nañu ñaanal rek. ndax loolu moo tax ñu fal ñu quoi parce que idée bi ngeen ci def ni moom idée bu naay sa quoi maanaam dañ leen ci encouragé bu baax a baax a baax te di leen wax na tamit képp kuy maire yaakaar naa ni tey ji lii mulgéey tey ji yëkkati a nekk tam ci ginnaam tamit di ko gëstu gox di ko jàppale tamit ci gox yaakaar naa ni li ngeen def ni moom mu nekk seen war mais tey ji ko koy lancé tey ak ñi nga xamante ñoom ñoo fi dëkk tey ak yeneen lan nga ci lancé. Euh, waaw mais Modou dafa am chance chance bi mu am mooy dafa am équipe bu compétence côté environnement équipe boo xamante ne ñun démb la ñu xam environnement kon boog Modou si ñëwee jël ñu denk ñu wóolu ñu ba dénk ñu rek denk nañu mot a dénk. denk na ñoo xamante ne maîtriser nañ ko xam nañ ko. Mhm. xam nga ni tamit su fekkee da ngay liggéey loo xamante ne loo miin la loo xam la day yomb ci yow te moom tamit mu nekk jàmbaar jàmbaar bi maanaam fépp fu ñu ko wax ne am na problème rek du ci xaar dara. loolu loolu lañ naan peccum liir su neexee nday jaatee ca mbagg ja moo dëggee daal ñaanal leen ko rek ñaanal leen ko ñaanal équipe bi xam nga loola daal wa tamit di leen ñaanal yéen waa euh, waa salam waa salam ah maa leen di ñaanal tamit ngeen na am télévision xam nga gën a yokku ba si kanam ah yéen ko dégg tey lii tey moo fi amoon tey fi nga xamante ne tey jii mooy koñ bi tey ji waa koñ bi yëpp tey génn nañ kontaan nañ kon maanaam a taxawul ah, nga xool ka caméra baax a baax nga wax tey ji mbégte bi ngeen am tey fii ñun am nañu mbégte am nañu jàmm am nañu salaam ndax nga ndox mi fii sonaloon nañu ñun ñëpp a feebaroon man mi tension laa yow feebaroon ba entre hôpital kee tànkam daal di dagg ba nu ñaw ko ñun ñëpp feebar ndox mi yooyu sonal ñu xet gi sonal ñu suñu duus yaa nga fees ba mënuñu cee dugg kenn mënul def dara kon nag Modou Gueye bu ñëwee def lii ñu ngi koy sant ñu ngi gërëm di ko jaajëfal lim moo xam lim bëgg yàlla na ko yàlla defal te mu ñëw dimbali ñu ñun waa bi ndax sonn nañu sonn nañu feebar nañu tàyyi nañu nañ ñoo dimbali ci suñu ordonnance yi ndax ñu mën koo jënd feebar nañ sonn nañ tey tey ji maanaam bi nga xamante tey ji Modou Gueye am na ko tey ji leen defal tey moom bi mu toogee yàggul te teewul tey moom maanaam mu ngi leen di jàppale tey la ngeen koy conseil ñun kay Modou Gueye lañ wax oh. Modou Gueye lañu wax tey ba suba ñu ngi ci Modou Gueye waaw ñu ngi li li ñuy jooy mooy li ñu koy yéexoon a am comme que am nañ ko ñu ngi sant yàlla di jëf nañ dimbali ci suñu fii waaw waxuñu kenn ku dul Modou Gueye. a ko dégg loolu la wax nee na waxuñu kenn ku dul Modou Gueye kon gàcce ngalaama kon Modou Gueye fi nga teg sa tànk baax na kon nekk ci te nga xam ne sa askan wóolu nañ la sa askan gërëm nañ la kon nekk ci donte yàggoo fi nag waaye ñëpp a ngi lay coow kon gàcce ngalaama amal jàmm rek yow Modou Gueye na yàlla defal jàmm. mu nekk ci kàddu askan bi tey ji xamante ne ni euh, mooy li ngeen jot gis léegi suñu kilifa nag mu a baax waaye li ñu moom dañ ko rafetlu wuñ rafetlu wuñ ko dara parce que mécaniciens yi nekk fi ak chef de quartier ñoo si war a taxaw ak maire mécaniciens yi ñooy sëkk fële ci ginnaaw moo tax lii di ñëw fii te loolu dañ si war a mën a taxaw bu baax a baax ba lépp dañ juste nag waa koñ bi waa quartier bi ñoom ñoo war a génn lépp ñëw bu ñu taxawee rek affaire yi baax incha allah tey ji ñu gis ne tey ji Mourou Gueye tey dafa yónni ne fi tey ji jëlee fi tey li nga xamante mooy li fi jotoon am mooy ndox tata ndox meeg salte salte yi fi am euh, moom bi mu toogee yàggul tey ji idée bi nga xam ne tey ji mu ngi koy def tey ji ci biir secteur bi tey ji ban taxawaay nga koy nga gis ne tey ji war na ko gën a yóbbu waaw mu gën a góorgóorlu rek mu gën a góorgóorlu loolu moom rafetlu nañ ko parce que Mourou Gueye doomu Modou Gueye ñu nag ñoom ñoo yorandoo ñoo defandoo lépp moom li mu def ni moom rafet nañ ko nay gën a góorgóorlu rek gën a yokk gën a waaw loolu rek lañ koy digal daal na gën a góorgóorlu gën a jàpp te xam ne liggéey bi nag sa tali bi la ko war a tàmbalee si mécanicien yi ñu arrêté seen sëkk bi xam nga ba ndox mi dootu ñëw fii macha allah maanaam léegi ci li nga xamante tey ah, gis nañ ni nga xam tey ñoo nekk ci koñ bi tey ji di sant Modou di ko sant di ko gërëm tey ji taxawaay bi nga xam ne tey mu ci bi tey te amoo xëy amoo gon tey moom mu ngi def tey ci jeunesse bi tey ji yow ban conseil nga koy gën conseil waaw mu gën góorgóorlu rek parce que ay magam la koy defal rek parce que moom léppam fii la waaw mu gën a góorgóorlu rek waaw macha allah na gën a góorgóorlu rek Modou Gueye ma loolu laa lay sant gën a góorgóorlu jàppale jeunes yi ñu liggéey ñu bokk ci koñ bi ak ñu bokkul ci koñ bi parce que jeunes yi ñooy yore réew mi ëllëg loolu rek lañ lay sant di la remercier baax a baax. kon baax ok merci jërëjëf. baax na incha allah rabi yéen a kon sama caméraman.